pour s'habiller chic classé glamour Kër Ndanaan vous ouvre ses portes waaw ubbil na leen ay buntam Kër Ndanaan shop habillement accessoire ay marque italienne boo duggee Kër Ndanaan ba génne ñu xam ne dëgg nag différence am na yow mi set sac bu am classe sac de marque sac bu glamour yow mi nga xam ne nag ay robe ngay wër ay ensemble combinaison ay chaussures de marque façon boo leen ci bëgg fii mooy kër ndaanaan butigu ndaanaan yi butigu star yi fii rek la kon nag def leen ni moom Erika amul benn secret fu dul kër ndaanaan fu mu génnee fu nekk marqué la différence adresse bi Rufisque arrêt Sonadis derrière pharmacie Astel téléphone 33 836 54 23 wala 77 831 82 30 wala ngeen contacter ñu sunu whatsapp 0039 34 53 24 15 02 dama ne du bandi sañ se rek ngay kër ndaanaan moo Bienvenue à Tawfekh Multimédia, votre boutique de référence agréée Apple. Pour toutes vos maintenances et réparations, Tawfekh Multimédia vous offre un service de qualité avec un technicien qualifié sur tous les produits Apple. Songwriter Vault. Ce n'est pas tout. Pour une meilleure protection de vos téléphones, tablettes, Android, nous mettons à votre disposition une machine de marque Devia pour la protection de vos écrans. retrouvez-nous à Rufisque, quartier Carissouf. Le téléphone est le 77 031 111 ou encore le 33 836 07 87. Tawfekh Multimédia, votre boutique électronique de référence. moo leen di may seen série Këru Dëkkandoo. Hey, euh... Lève-toi. C'est Yo, quand ngay wax Zélol Toi, tu es malade ou Tu me pointes le doigt Eh, yo, il euh... hey, yo, yaay malade. Yo, mi ñëw kër jaamul xamoo heure bi ngay dugg kër jaamul. Tu me connais moi Connais wu ma la. Tu connais dëkku fii. Connais, moo fi dëkku. Hey, eh, ne me pointe plus le doigt. C'est quoi ça Ce genre de personne là Eh, yo, personne bi nga doon moom la ñëpp doon.

yaa ngi def mais tonton non c'est malade bon. bi fii gisoo fi xar banaan mu tong yaay mu bi dégg nga li ma la nekk leen Sénégal nekk leen fii fii fii bañ a nekk Europe en tant que sénégalais na peut être peut être lii peut être moom laa. mais eh, non. Eh, maa noppi. maa dafa tu parles trop. ci saytaani trop trop. yow yaa saytaani. ah mais non. ma doon pas comprendre. ay boo fi waxee ba wasiin fii. ay boo fi yuuxee ba doom ne puccet ci weeru koor gi ku koy tut xam nga lan nga war a def yaa ngi def sa jëkkër naanusba euh. nga war a lijjanti fan lan ne benn weeru koor ngay teg c'est pas ton problème waaw ah, bu ñu waxee muy xullee ku mel ni looy ak ba si junior may koor dimbali ñu je n'ai rien à dire fexe doo toog lu neex safle woo day wex xorom muy xom moo tax mu dem ci kër dir ya toog fa ñu koy toggal ginaar gu xom bu ñor xom togg bi du du du weex ak xorom yaa ngi def comme munoo sa boor mu dem fa xooti beneen boor xool ko foofu lii laa lii laa wax de. je sa table la de bu dee sa table la nga mocc li ji ko de sa table mocc li ji ko. espèce de ko mu naan xoola xoola yow kay yaa yor ji yow mi jël génn yooyu euh, euh, ne ko jàpp sa ginnaaw gi ngay niroog tamaate njam may wax sànni jaay moom di di panda ah may mu naan nii nii nii kii laay toog fukki yu li ke ñangalaa nene rek i ndogooxanga ba pare rek o ñangala ndew nga génne sa jikko bi yow sa jikko bi dafa mel ni heure ndogu lay bañ nga ñangal ñangal ñangal mel ni ku dëkk Bamako nii lan la lan la maye koo dimbali ma yaa ngi dégg may ma sama jàmm yow maye koo lu tax yow am moto kilifa wo jullit yow muk muk muk eh wo waraa mu addin meeke jul ah? a wo fikki no yow yow boo boo lekkee ba sa biir bi fees rek nga nga nga tëdd pour nekk ni nag musuma xam ne iblis nga dañuy def nii ndeke iblis nga mi fokkati raa faroo anum andinoo fo ga am ah, aga ga am lom bul fàtte na ay ceddo lañ fo ɓiinu roogo i ndef in ku i mbiɗa daga nay ceddo jul a julli ceddo jul a julli man respecté gis nga gis nga maa fi nekkul di la jiite julli te xam nga ne yow gee xam nga ne si kaw ngay ngay ngay ja si kaw ah danga maa bëgg a wéer ni ke jikko dag maa bëgg a ku la wax na sama njàng sori na. su fekkee da ngaa sa bopp nag ni Tamba Diagne man maa ngi dem def ba dam foofu julli. comme yow amoo demal nga julli. do doo ma lakk lakkaale ma. ngay def ak sa sikkim bii di mel ni seen ko. ndewe eh eh eh, eh doo dox na booy dox nii say say yaram bi yëpp ay yëngatu to xam nga paawu jàkka ja buñ la xasee teg bii mooy récupéré nañ la yaa ngi de ah ndew juugal say yax depuis que say yaram. piquer sa yaram di dox lentement lentement lentement bàyyi bi xam naa paa yi nii ngay dox benn bi def benn bi def nii rek kenn dootul xam ni ngay jàng sàppe boorom dang koy yàq ndew mii saytaane wu ay mi fa mi mi ndew fa ne ah, ah ndewa mii nay ah, kii yàgg miin na léegi de julli julli mayo koor jiite ma jiite man damaa mas a jiite kenn di di lakk sa di lakkaaleel nit xam nga ma de. barke rok seen xamee nga ah, barke xamee nga ma <laughs> xamee barke faape da ngaa fàtte. ma song ma song ma jëlet jëlet song ma lu tax doo ñëw ñëwal yow. du yaa ma soxla kaay ñëwal. da ngay ban ban lu ah, kay rek du xam nga ma yow yaa ma xam wala maa la xam barke fa fes boo ku mucc sa kaw ma ne la maa mucc sa kaw <laughs> catun wa catun wa catun wa maa mucc sa kaw ñëwal ka yow ñëwal barke de réseau réew ga yàlla seen bu ma la mbotee nga gën kenn jëlee tànk bi jëlee ma ne la yow jëlee tànk bi ñëwal xanaa du da ngay ban ban ah yow yaay ban ban ñaanoo revanche ñaanoo revanche ah. maa mucc sa kaw ah. maa mucc sa kaw jëlee jabal jabal kan moo mucc sa kaw man maa mucc sa kaw nga ne yaa mucc sama kaw man maa mucc sa kaw catun wa ma mujj sa kaw ngay nekk fii di wax fekk ma sama kër ya xoola fi fi ma fekk a baax fi ma fekk nii mu baax yow da ngay bañ barke ci ak es ñëwaat ñëwaat ñëwaat ñëwaat si xam naa mooy noonu ñëwaat ñëwaat joxaat ma ko joxaat ma ko joxaat ma ko xam xam nga ndéggéey koroma koroma xam nga ndéggéey naa la koroma xam nga ndéggéey naa la koroma waaye Koroma bàyyi na ngeen bi waaye yow itam la si sa may ma Koroma biiral Koroma bu rey doomu jaamu ji Koroma yow itam eh biiral waaye biiral waaye yow itam eh eh eh waaye yow lii lan la Koroma da ngaa ñàkk jóg waaye yow eh lii lan da ngaa ñàkk jóg songaat ma ndoppil waaye bu songaat ma song ma song songaat ma xool songaat ma waaye yow yow yaay kan yow yow yaay kan bëgg nga ñëw di ñu dara doo ma mun a xam lan la doo ma mun a xam Koroma yow itam laaj ko man ma ne ah ay dëkkandoo ngeen fi nekkal leen moom mu leen ñu lan la ma ne laaj ko man may kat. lan la kii kan la kii kan. yow xam nga ma yow yaa ma gën a. ñàkk joo waaw yow waaw soog ma soog eh, ma. yow yaay kat. soog eh, ma kóol maa ngi ko yow itam yow waaye. yow doo ma bàyyeeg Moussa ay dëkkandoo ngeen fi nekkal respecté leen seen bopp. Eh, yow yaay kat yow man xamoo ma. laaj ko man may kan. yow doo yërëm sa bopp. man doo yërëm sama ah. bopp. lan ma dof. yow jël ma jël ko yow itam nag. Mm-hmm. may koor lan la may koor lan la yow itam bàyyi la li ngeen di def ah. gari sandis. xanaa du ngeen ay mag nag ngeen itam. isandis no ah lan ngeen. ñëw boo fekkee ni ay nit ñuy waxtaan nan nga ci duggee seen diggante. may ko rek may gaañ. da nga doon gaañu. <laughs> yow fii naa di jeexee ne ma nga doon dem. borom sa mbaxane mi. ay nit ñuy waxtaan rek nga ne torop seen biir. naan nga ngay woon a borom mbaxana. <laughs> Ah, may koor lii lan la. ay ay ay ay lii namante la. ah dégg nga. lii mooy namante ñun séeréer bu ñu namante dañuy mboore. barke Fapé ci mboore la ñu xamante. wallaay wallaay kii sama rak la maa ko dàq mboore fu <laughs> dama ko doon fàttali ah, ni ngeen di namante ko. dañoo namante woon lii suñu culture daal da ngeen bëgg firi di ma dóor ci kër yow da ngaa xamul. jam fa boor Moussa Faye mba rok fa jëm rek jam fa boor ay ay ay ay Moussa na ay ay ah, barke rok yéen ndeysaan Moussa na moon naa la ay ah, Moussa Faye eh, ma eh, jam la a ah, jam fa boor kay ay ay ay yo som gis nga uh-huh. suma xeter baa ngay teb toog toog déggal li am nga <laughs> léegi mbore amatu mbor ah ay boreetuñu xay bu njëkk bañ la cere laay saako si ma ñaa yaa ngi fàttali waxtu ba ma ko waxee woon barkeeru xanaa xamoo ñaari néeg yi nga gis ci fan ba uh-huh. ay saako si maa la toon saako dëggal li lañ ko miri kii a jow nga ma nag hay sa fay jow man bu man di xasaa na nekk def ba lam yëpp toj naa ko njel yi na ngeen def ak koor gi waaye koor a ngi nii ha ma jam la rek jam fa bor kay ay eh, Moussa waay Faye Biram Penda Waagaan am na loo yëgul naan luyu xawati luyu xawati indi naa la surprise na eh, <laughs> samba ma jur jur na lii tubaab naan maa da fukki wu ma jur na la <laughs> eh, waxali Assane Diouf ko teb dangay wax rek ba ñu kok oh gore saano Assane Diouf mun na ne moom mo day tebuwaate rek ayoo moom ko de moom kay xar yi fi yi ak béy yi sax bàyyiwul leen. bàyyiwul kenn ay eh, waay jëga mi ngong waay. koy tëb. Eh. këram ngay dem. déggal lii ay këram ay Assane Diouf nag moom itamit. mbaa mi bi muy tëb dama ko joxale ne leen jóob leen kër Assane. ba moom da koo maîtriser. moom affaire tëb bi da koo mun carrément. xam naa nag bi mu nekkee loolu rek la daan def. moo taxit de. wallaay wallaay ku am mbaam daal moom. bu ma am. góor la góor way sama de yow de ko man na bo bang añu ko tegal li wala wala eh barke wala wala ndere sa jaaje ah asan ju kay kerem ga moom masha Allah naat dena eh, naat dena ku teglu rek eh. yóbbu kër asan man de ni war naa euh, ngente war mbaam bi ngente bu rëy eh xale yi utal nañ ko tur na turul waaw déedéet nañ ma bàyyi ma tudde ngente guñ ko nag waaye xale yi moom ah. maa ngi dégg ñu naan ko zee zee lañ ko tudde zee zee du ngong boobu du ma ko tudde zee ah du ma ko tudde ko ko damay wut keneen ku ma ko tudde waaw waaw euh, borom tawfeex laa koy tuddee. de eh, eh, yow xanaa kooku dafa doyal ci turundu. ah artiste comédien yi sax léegi. boo amee sax dégg nga maam dégg nga maam eh, xar bu jub la wala nga ne borom tawfeex ñoom seen lépp léegi borom tawfeex la. waa da a fàtte ne Médouze dégg nga suñu wetu penku baay la jàng. ah waaw. jàmbaar la ah am na saar yoo xamante ne Médouze mënu mun woo. <laughs> yaa ngi koy fàttali. maa ngi koy fàttali <laughs> ay bi mu nekkee ndongo ci dëkk ba. boo ko saraxaan doomu daal. waaw mais du sey de bu daan tiim doomu daa ji bay ma kenn du borom oh, taw bi waaw borom taw bi kooku yàlla man xamoon naa yàlla dina ko may dina ko na ko wallahi wallahi te dal te dal te dal yàlla ba sonoo si yoon bi ay ay waay euh. ba toj na lu ko toj ati xarit ba hmm. yaayam ba gaañu no ay ma do fokki ni oh ay waay looy wax lii waay ay bu gàtt dem na waay ndey euh. meer bu doo meer am sax seet. ba meer boobu man xamoon naa ne. ak a soxla duggul fan. dafa soxor duggul fan xool bee iñaan. Ibrahima xool bee iñaan. maire bi buñ daan wut bal nii ba bal bi dugg si kër ga. mu jël paaka rek ne xetee. ma ni sukuraatam noonu la métti woon. bi la métti. sukuraat bu métti la métti. da nga suñu tënk. ndeysaan xoolal da xool ñaata kër moo dox ci diggante. wallaay da ngay dégg maire bi dën bi ni muy xiiree. wóor na ni malaakal moo ci moo dikk. dégg la ayi. Eh, ndeysaan gaa ñoom gi métti na. aywa gaa ñoom gi métti na lool. kooku de deel ma ne. ayi du jël dossier ba day ñëw rek mu ne la oh, aussi va. Oh. du ko <laughs> dossier yoo xamante ni yàqam diw oh, lay wax. ndew ndew nee na dafa dem jumaa ja julli ji. xam naa gée la fay julli ak naafi la. man la bëggoon ma jiite ko. ma ne ko du sa dal. ak ni mu yombee yow jiite rek nga yombee doo ko jiite. man bu dee takkusaan tisbaar ak takkusaan mun naa ko jiite de waaye timis jëm gée ba si kaw. loolu sama rawaan nanguwu ko. nanguwu ko. ana yaa dégg kuy kuy kuy naan di man. ah kuy laqatu. waaw di man waaw. Ah. ma waxuma loolu bàyyi na nga cere. cere ah ñaam saaj dafa baax ci xet de. Eh, saaki de ingi waaw premier jour koor saaj laa xet laa ndogoo laa xet de. loolu de baax na loolu de baax na ndew tegal ma ko joo xamante ne. tembar sa am kecax kecax gu fere gu bees gi. ndewa mun a toog ndewa mun a toog. ay waay eh, ay eh, waay Moussa Faye waay. bàyyeekul barke Youssou waxoon na ko bàyyeeku. bàyyeeku bul bàyyeeku waay. waaye nag gis nga. benn maire waxoon na ma. nee bu bët gëmee tarxi bi. waaw. kon bi mu nekk nii daal daal.